Metina leen ci a ñàkk jom jabaar bi laa a ñàkk jom maa ngi ko aj foofu noonu man pour man damaa yaakaar noonu ne sax moo dee nekk dafa ko maa mbeer waay. kaw sëñ ban wax dëgg bu lakkoon nag xam nga mi ngi nii di waaj a xam ne ne bu dal yi lakkoon dinaa la lakk. ne bu lakkoon dinaa la lakk. la lakk. di ma wax a wax.

jël ma ba pare ma doog a galax ndi maa ngi nit di la jàppale di di bëgg nga nga nga seulement pare ma galax di nga di nga soof ku sel mu daal di wax man daal boo léegi dutuma la tontu xam naa ne tey rek na ma de waaye boo léegi gis naa ko du ma du ma la tontu yow sama yaa ma ko yàqal ah yàlla xam ne ne bi may dama bi may jël benn xale bu jigéen rek may foo nanteeg moom ma jekk-jekk yaa di yow rek def ndànk sama kaw xaw man maa fekk saa bopp ci booba dégg na ma def affaire saay saay de man xam naa yëpp affaire yi dafa neex rek moo tax ma wàcc la de mais nag na ma defee affaire saay saay de parce que yàlla yëpp yëg naa ko du gis naa da ngay lam sama yooyu di ko digi as tax ay ay njànku yaa ngi may dem waaye di nga di ngaa soof nag yow tamit ah non de rien waaye wii noo ko waa papa waaye eh. i man dañ ko xaw kan la de ay fa CPO laa bàyyi de CPO. xamoo comme xamoo ko. ah kenn jàngalu la kenn jógalu la. boobay wax dama lay di rek barki yàlla dama lay dóor. boo ma dooree ma bayu de man dama lay de. ah boobu yow man nag pare wax bi jàpp ah baax na man sa mag laa de maa la gën oh. a yar nag. jànku yow. jànku. waaw. jabaar. daa leen jël seen réew ba mu ngeen dem ca tool ya naañ na. Lamine dina ñëw jëriñ ndeg lu waay ma jël rek waay. Lamine ñëwal waay. Jabaay. Oh. Jabaay ñëw ngeen dem ca tool yi ñëwal waay. ñëwal waay naan ña waay seen morom yëpp dem nañ ca tool yi nag sama na. na def ko di ngeen demee jël góor góor xoolal mu may jox di ma gën a ma jox ma du ma def yaa xaajal man man. jari waay am rek am ay papa papa. kii daal jërë nga neexal yéen am kay am kay sama kii jërë neexal. sama baay la di fa yebaate de. sama baay la papa dem leen rek ngeen ca tool yi ngeen dem liggéey. am radu radu gi gis nga ni moo ko ci noonu dóor ba yu jàmbur ba mu dem. yow yow lan la di leen nit ñi wa man booy wax booy wax ju bëri ji wax dama déggoon damay nag rek bàyyi. na la ëpp doon. yow daa ko moo ma gënal nante ko. waaw yaa ko mooy jamaa da ngaa bëgg ne yaay wax maan rek may sax man nga nag leen laa lay wax. Hmm, damaa biig nag. ndek li dafa tuuti. Hmm. bàyyi sa loxo waay. waaw damay xool nag njàng yow tam. Ah, di soof waay. damaa bëgg nag ndek li ma teg ko. maag yow ku njëkk tool yaay lekk yëpp. sa morom di xulli. danga may nax waay. waay naxuma la waay. taxuma la. waaye danga may yoxol ba ma nekk ba ca ginnaaw seng bële seng bële ngay seen. amul benn problème mën naa laa yo. bu ma fa yegee bu ma fa rek nga toog sama ginnaaw. ma naa laa yoxol ba ci seng ba amul ah, problème. acca léegi da ngay wàññi. taxawal xeer bi ma nga ne la eh, eh, eh, taxawal taxawal taxawal taxawal taxawal yee ya, ku mangoy wa dëkk bépp balen ma ak baal naa ñëpp ak damay fëri tànk bu soobee di nga bu soob yee ku mangoy ne sa ya juróom fuk bi mako ko joxoon ci ngental doomam deñ na ma ko delloo damay fëri tànk sama fula laaj am jég bu mo ñak dem bu ngale ndaw sax eh aram arab aramo ya may dégg de juróom fuk bi dama ko soxla la ma ses sees beeg bokk suusar bi la ciy def monsieur le maire waaw ndeysaan waaw waaw góor way ah ah loolu de baax na waaye monsieur le maire yéen ne may seng ni ma xatee ko sa kër gi billahi monsieur le maire li nga def baax na waaye day monsieur le maire nag wax dëgg yàlla loolu baax na de am na lu mu ko gënaloon de waaw li nga ma sama kër gii nga xaddale nu ko jàkk ji ci koñ bi billahi baax moom képp lañu am nag waaw kay waaw waaw wax dëgg yàlla ma de jërëjëf lagu góor jërëjëf kan sant bu wér a ya, wér waay waay waay waay ya. waneeti nga sa cofeel ci lislaam de ma ci yow de ku gore rek koy wax waaye li ngay gore gore lépp ñu jox nañ la cër nawloo nan la jox la cër respecté la mooy kuy dugg sa kër gii bu ñëwee ba ca bañ ah. simi <laughs> na ci worma gi la booy sëy juróom benn weer juróom juróom ñaari weer juróom la nga jikoo sa jëkkër nga am droit dem nag su jëkkër day toog sori tam bug laaj su ma ba ma dem ma bëgg la ne bu bu toppee rek comme nekk ñu nopp nit ñi def di ko jaxase di ko fi di ko jaxase di ko ba ba def ko tax mu mot def ba kole boo dee nii rek mooy lewetalu kole kole li ma dégg nga wax ko mooy la nga dégg rek nga ci nga ndax man bu ma xamoon ne fii barke maam du ko dara ko tëgee bu ma xamoon ne bu ma dikkee dama fi fekk njëkk dina ñaan yëpp njëkk la de wala tam fa dam ndax ma mën fi normal ay ko la dang ma fee nek dima ma jaxase rek dima ma jaxase ak mo war nga mako kompaloo ak sama jëkkër ji mu ne mot dem ba ma ne l'islam nak nee na boo nekkee dëkkal mu dem ñetti fan dong bala sey ba tass na seng yi nak bu la neexoon jëmale ko sa kër gi ndax sa nek baa ngi day sen waaye luñ la may na nga ne nañ ko delloo ci jumaaja nañ ko def ca daara ya nañ ko jox ci jangu ya kuy jullee du imam kuy takup set ñu ne yóbbu ca yak ja bu ñuy tudd ñu ne woy leen imaam te seen dem ci jumaa ji loolu du yoon dénkal ki jere denk mata denk ko mu yalla sunu borom yaay borom dekk bi yow jital jiital alaykum wa alaykum assalam ah musa isu la bay musa ba jam jam la du jàmm ah. la xamal dekk bi nar mu jepp se bi mu reer de hmm. ar doomi ngoy yu yi ño sanni sama seng yi rey nañ samay béy sama kër gépp yàq nañ danoo réew a réew a réew ba ñëpp say doom boo nga fam fukkoom ndax yëre moo ma gisa sama loxol yëpp yàq ba ma fii doo ko dëkk danaan collège tubaab collège tubaab fi ne léegi ñëpp collège yére lan may wooye a wala wala wala maa ngi xëy kunkun xar ak ay béy ba kenn lu may nuur ba ma amee at yi nga am yaa ma tane woon ma dama naan boo ji soq di wal di root yow di photo dara gaa nga ca penc dangay dem rek nga yanu mm. te nag damaa li ma ci jaaxal mooy dañoo commencé am doole luy ram ci nek bala jëm de te bis bu fa amé kër du gaaw gën wallahi wax nga dëgg de wax nga dëgg de yow mi amna fuñu jaar ak yow yow dama doomi ngoy dan la singalé xoma sak ragal la xaw ma sax doole man xol léegi bi dañ la ray de di gup sama ñak ñu ne ma an ñu dimbali la ma jox leen ñu gor ma ngubu ga dem nga gor sartu ba dem sama tank da lañ def dem li nak yow mi di borom dëkk bi di imamu dëkk bi war nga ci wax de war nga jóg nak lewer nga lool da nga ndoxum sam-sam man lepp def naa ko ko la xolal ci man yéen a. kole bu ma wor xool ci yow. mi tax may xool ci yow. ay kole. waaw kole bu ma wor. tey tànk dë dégg. kole doo fori tànk kole doo de ndax amoo ci ndigal. bala ngaa fori tànk jëlal alizé gi nga woo sa jëkkër ba mbàyyi na nga doog a fori tànk. ko ay ñeengo man bàyyi ñeengo bëgg naa damay waxati sama ful la nga bañ naa léewatal yi bët yi moo fi jeex de dégg nga bon ben même copine na doon won dégg na ndake len ko don jay dem na ba jënd def ko ci kaas na ko dem bon ba bam dewe fa la raja la lek moy ma ci kenn ab fa jarut lewatal bët gi de man de li manam dina ko def lewet nga lol war nga jog ci dekk bi nak der xex doguma len waye tay ji dégg ngeen maa yey nek man dekk bi dañ ma yalla dafa def may borom dekk bi waye fuma ma rek deggu na ma sa ñak fay dégg sa ñak fay nga dégg kenn warlu ko ku dul do ngoye yoy ku ñàkk fulla nga billaahi seen ngoñ fer na tay ah wa bax bu amé la bu bax dinaa ko liggéey ci nee mbaa ci nii. gone yi ndaw gone yi ndaw du ruux mag du ruux di saaga ko lañu def taxaw ci digg penc di saagaay nday man lañ leen ku ngeen wax ñu ne boo waxee ñu saagalaw nday man leen sama nday men sa. du du du du du du du du

ñëw ngeen ni seen gaal daa réer te Moustapha Sakir gii man xam naa lu mu doon xam naa ñu mu doon man mii ñu jox teg dëkk bi sa loxo lañ ñaane man lañ soxare moo tax ñu def lii waaye nag su ñoo demee ne nii man man doo mën a dem doo dem am naa nag daal yoo xam ne xale yi foroon nañ ko ndax man lu ñu for ci dëkk bi fii lañ koy indi man solo ma daal yi ma programme moom lay sol mënuma ko ma def sama tànku ñibbi ma ne tànki neen ko def moom yaa yaa xam waaye du ma du moom yaa xam na tàng na ma lakk ma daal yi ma jàpp ni ñu forsa ci li ma la mën a xamal mooy tànkum neen baaxul de waaye bu baaxul dinaa ko def man ngaa liggéey boo xam ne Moussa man liggéey dama mën a jàpp jërëjëf waaw baal ma suñu daal man liggéey lu man ci man bu subaa insha allahu dinaa ñëw ñu bu bari ñuy tëj nan lañ nan lañ sa waaw kole foo jëm néeg sab saak dama ne woon naa ci kër gi ma maroon dugg kër gi seen dugg yëpp ne képp loolu kenn du ko def sàcc mën naa dugg yàq la nekk loolu dëgg la yow yow Baye Ndiaye yow ñi nga ne jàng alxuraan xam nga li xew ci def dégg boo déggee ñu ne jeeg bi jëkkëram fukk na ko juróom benn weer islam la waaw l'islam man maanaam toog na juróom benn weer kay yaay xool ko rek déet loolu du sa wareef de sam xel nga sa wareef de waaw ndax am na loo xam ne nii man sama yoon ah, nag yaa jàng nag yërmande yàlla da ko wàcc alxuraan ah, waaye na ma ko yàlla laaj bu ma ko laajee ma ko naaj waa tàng yàlla man mi damaa bind yàlla damaa bind ma bii nag fi ma dabe baaxut na ma koy firee ma ko firee ak ah, dina la de saar wa yaasin la ne yaasin kor gu sedd lañ ko bind te tàkku san ba ba kër gu sedd ma mo na fi mo moo xam ma ko na yaasin dama woo waaw ne ma xanaa kii waaw ma ne li ma mën a waxee maa ngi wax ak moom waxal ak maa ngi wax ak moom kole xam nga lu ñu xamal déet déet déet yéen Baye Ndiaye déglu ma rek du ma la dégloo torox su ma la dégloo dee Baye Ndiaye xamatuma ah, man dama laa xool waaye da nga def ah. lu Baye Ndiaye mii jangan atuh tuuti jangan atuh déglu nga wax. jàng rek yow sa xam-xam ci lim ci sama xam-xam daal lim ci wax mooy nga dem seeti sa demal de. ah ñaanal leen ma. wala maa dem man damay dem naaju dem ma. kon na ñaan gi ñaan gi dana nangu. dana nangu sa rek bari nga wax de.

ah man xanaa yéen yëgoo leen li may tàggoo ko ah kenn nga tàggoo dem bi dana maa bett a bett rek ma ne naa da ngay fori tàng non kenn yëg ah da ngay fori tàng jot na sët nag yan tàng ngay for sama tànk yi ma toppoon dik fii du ma fu ne ma jëf tànk di delloo ah noonu la di ah kon kay jaar naka jot ngay guddal nag ndax Baye ñoom waaju baax ñoom ñoo la ñoo la toppoon indi la fii demal nga for seen ñooñ daal daje naa ñoom ban ñaanal ma ni naa ni naa dem dégg nga yéen nag da ngeen di gën a yu xaw a kii ci man rek waaye xam nga ni tak eh, jërbaate jëkkëram rek dégg dama leen a bëgg a tàggu ban naa ngeen déggandem ko ma dem ak de ci rek du dëkk man bugguma nga dem de dima bëgg nga toog ah. bay ko ma for yi tànk nag wax na dëgg sama nijaay ba mu demee ba léegi di ko yónnee wu deful di nek mbàkke di yappar yappar yi rek. mu saa ñoom bàyyi si daal noonu la xanaa. saag bi mbët newu ci de ay dalaa ci ne. bu doon mbët dama toog ba lekk ci ba dem lek doo ma jox sa numéro téléphone. eh waaye numéro ga moom lan bin ca néeg ga waay. wax nga dëgg dinaa la woo dégg nga. ah na ma ko le demal ak baa del seet nga rek doy. ko le demal ak baa del seet si nag numéro. coo. di kala ndax. demal mané ko suñu kat wa ngok suñu rayu. man nag bu ma ci boole am na faa xool naa. dangeen maa mënta bàyyi xanaa. li li mu doon. ndaw guddi ndaw bëccëg. nga jaamo dëmm yi bon yi ngeen ne xaw ma seen ndey xaw ma ngeen bëgg ma lek dong. mo daf fu ngeen toll naa ma ndaw guddi ndaw bëccëg ba len ma la wax ba len ma nga lay ma wad da ngeen na fekk ne keroog bu jógee te boppam ba yeenu koy fatali ko yo jaba eh nak man mom benn dong la ma sañ a paaxu. nak du yene fak man dekk bi. may fak man jaga jadi ya pak manu dëkk eh duma Bakman deppuma jaga ci yow tam nak bala ma gëna dé ñu yalla ci wala ak seen bakk fi mi fa ñu nun mi fa ñu num gat yow di ka nangu won dem mat ñax la tay bu ko bañ wax na wa kon bi do ko tax ngay xam nga ma ma la nak ma la ndax fa ñapa ko don da la

mën naa dëkk ak yow ginnaaw maa naa dëkk ci biir kër gi man fat ma yomb na bariwu ma yére te bariwu ma sama bariwu ma man sama bopp naturellement bariwu ma xale yi réew nañ réew nga doo xamante ni faw nga ut na ah, fii nag baax na ah. lool bu yéen eh, ma ñëw ma noo set mu ne la na tak waa bàyyi Moussa dama waaye lu nga dul fii eh damay damay ñi dafa laq ñu boo a netee waaju bon ma boo ma saaga da nga xam ne maa la gën saaga ma bàyyi Moussa loolu indiwu ñu fi ñuy <laughs> góorgóorlu léegi di liggéey mm-hmm. di daan suñu doole duñ tooñ kenn moo tax ñu jóge di kat dëkk di jaay dal ak dal daal mag laam daam li gone ginne daal li mag yu tàng jëpp ay eh, yii maa koy nangu. nga ne yii 4500 yii maa koy nangu ah, waaw ngi ñëw léegi jox leen junni. ay waay waaju bon a ngi yow man nga naan waaju bon. ah yow da ngay jama xarit nag. jërëjëf yow maa ngi yow ay xarit lan de. yéen xanaa bakk ngeen bànku ngeen yow. xanaa kay da ngaa xaw da ngaa xaw a naq naa fekk daal yow sama xarit. daal yii daal tànn na jëpp. ah yow xam nga daal yii foo ko jël. ah yii yii yii yii yii yii yii Eh. nga xaw ya, ya. gitu, ya? rek rek ko ni tank teyal boy ñu ay doomi ram sa yow nak magat nga de magat wayo gis nga ko rek bu ko kunta ba wax ñak ko bima timé ngone sa xel dama ci mbàccum gerte ma ci xel ko xaw nañ ko la dama ko jot gis nga gone yi buñ leen defut ni mo yow ci sun digg bop bi lañuy tok ñaata at juroom ñaari at boy ak may sa ngay xaw ma numa koy fayo rek ruux sax dañ la koy def mo yow yow kay yow kay eh yow kay sa tubay yebban nañ ko fuñ la fekk ruux fuñ la ruux lañ sa tubay sa tubay ay eh, eh, jambar lañu eh, ah gagna do nak gagna do doon manar ya dañu tal keur Bintu Fall ga. xaw nañ la gagna def yàgg naa ya waaye fi mu waxatuma loolu xalé bu ñu def loolu ni musiba am. waye nak bëgg na nga dimbali ma nak ci ci ci ci pat ci ñax. mbop am mbop ngoñ amatuma ko. dimbali ma ci sama neeg bi la ci bëgg rabat. dimbali ma ci mbop rek. ah wa xana nga ñëw dama la koy jaare duma la ko may de. ah wa baxna na ba tey. waaw baax xar yaangi mbem rek. bu suba ngeen ni sama xar yaangi mbem rek. indi sa saret sa mbam baxna ma jaay la ci cung loo xamante ne waaw junne rek laa la koy jaay d'accord d'accord ndax ma mën a wutaat ay kii yu ma defee sama kii loo may jox jox ma ko ma dem demal takk xam naa xale yi fii la ñuy taxaw du ay imbécile lañ demal takk sab saret ñëw ma jox nga ay laa lala mooy may fayu may fayu ci napp si yàlla di may fayu Baye Moussa ah, wax na laa gaañ fayul bu amee fula ak fayda nag da ngay fay loo a taal ñaxam mii mu war a jox mbaam indi indi ñax mi ngi bi muy jox mbaam gi laay taal mënoo woon a taal kër Baye Moussa gi moo gënoon a gaañ kër gi dinaa koo ko nega ni Baye Moussa boo waxee rek boo dee taal fii ngay def ci suuf rek Baye Moussa boo waxee rek muy muy nekk ca nga boo xam ne nii day taxawaalu gonay dëkk ba yëpp amoon na leen. def leen def leen defeeku na. lan la ku def lii la maa maa noqo taal taal. ne yaa noqalal. eh taxawal ah ku ah Hey! lan waxonte woon fële buñ duggee nañ ko appliqué xale yi seen réew nag wër mi lu dëgg la moom. dóor nañ fi mag ruux fi mag. waaw waaw man mii day. te war rek léegi noonu. bu ñu wax ak ñoom ñuy dëgër bopp man may def ak muy lu leer. ak ndayam ndayam wala mu appliqué man dinaa appliqué. gone yi sonal nan ñu de borom dëkk bi gis nga waaju baax kii dañ koo jox dëkk bi nit ak ñoo judd mhm. wala nga ëpp ñu fit moo nga yor dëkk bi mhm. da nga doon ci say ñu yow umpul won ba gaynde gi duggé ci dëkk bi man la jakarlo ak mom ba fi yow mi duggé man mi mako ray tay nak wala ku wala fatani wala sama bopp bii danaan dem gaynde gi ku la ngemb waaw yow degluma rek sa bop bi da nan dem ba doone goné musulman ma ni mu ne ba nek goné musulman ma maa yow koy waxal waju bax suñ démé so mbéjé dinaa mbéj so mbéjul dinaa mbéj waaw man jigéen amul yërem dé waaw amul séral xalé xale yi wax amul séral bismillah nan dem déet ah kay waaju baax ba sa tem tam gi yow bañ yi gone ba leg sa xaral gi sa sa sa sa gaaw xex gi mom nga nek loloy deug gis nga deuk bi nak di la ñaar dañ ko tek sa loxo bi ma yilif deuk bi nak bo leen ni ñu yilif na yow yilif ma kon nak bu ñagge jàggee foofu wu ma kenn wu ma kenn dal fu la taxu ñu jox deuk bi fay way way len nan dem bu ngeen dóor man ma dóor man bu ngeen fanaree dóor dal ma depp man nga dëpp boo dóoruma dóor de bo nga dëpp boo dóoruma dóor de ay tapen ko lool waay boo dóoruma dóor ay waay maa ngi de ay bisimilah bisimilah ay ndox ngeen naaj bu tàng oh, ndox ngeen naaj bu tàng ngi laay ana waa kër ga waaye ana gone yi ñu ngi fi alhamdulilah barikalla kaa jabaye jabaye taa bugg jàmmante gi doy na nañu wax li nga xamante ni bii moo ñu fi indi yow mii ngoy mhm. xam nga lu ñu indi ci sa kër gi ya sa ñaari doom yi moo ñu fi indi te yow umpale woo ñun ñett ñuy toog fi ñu jaar ak sa boroom kër bi làqu yow mii ñoo la jële ji woon njabaxali nga ñëw wàcc laañaar gii say si bañ lay jël si dugg naa ñeenti oto ak ñetti saret ndax dekk bu sori taw ta ci all bi ba tooy xat ñew nga wacc fi ci dekk bi sa am fi ñaari dom sa borom kër la yaakaar naa ñaari xalé yoy waron nañu tal leneen toñ seen bi bayyi waye sama kër sama sengé yak nañ ko barki demo ndjay aw xeer lan ma sànni ci nyurai manon deta way ñu rey rendi sama beuy amuñu lolu di di jàkkaarloog man nak di xex tal nañ sama ngooñ gore luñ ma defut amut sa ñaari dom yi melni ben benn sëb ci cin xammeetuñ seen moromum bàyyi xammeetuñ seen moromum yaay ku ne nakk ku nakk gañ-gañ rek wëlbati ko nakk ko ci des loolu nag lañ bëgg mu dakk tey tey tey tey tey tey moo tax ñu ànd ak kii nga xamante bi mooy borom dëkk bi di imaamu dëkk bi alaaj xam naa ne dangaa mer waaye wàcceel sa tension rek boo gisee niñ dikk rek xam ne ànd ñoo sago li ñu bëgg nag mooy sa doom yii ñu rek la ko ci nii mbaa ñu rek la ko ci naa ah, Baye musa dogguma la sax yàlla bu la dee dog waaye ngooy mi umpulé woné kat man ak yow mi ak waju bax mi ñoko doxi won ah wow lool wax na ko légui serignam bu bax ba ci aljana wax deug yalla dox ko doxi ful la day fekk fay ay wajurum ñu may ne ko ci ful la mu sey fi nak sey bu rafet lool da yaqku ci dara deug la kewel nak du teub doomé beut ah waye mom mi de teub na doomé beut ay bëgg day war ta nak lopp tuuru li nak da ngeen ma yey ndax kala ngeen kala ngeen mako guddi kala ngeen mako beccëk may duma ca dem sa doom yi la bëgg nga wax ci ñoom mbaa lu ko maykat laax dina leen lakk waaju baax mi mën na maa seede waaju baax mer tax xam naa du ci sànni kat mer dafa mer ah ngoy wax ak yow dafa jot ndax ñii dama defe ne seeni mbir ak coxor da cee lalu ndax jël seen bët bi ko tekk ci doomi jàmbur xale yoo xam ne xamuñu dara defuñu dara saago woon fi nit loqi woon fi nit tuumaal woon fi nit waye jël doomi jàmbur ñu ko ngank tu koo ba xale bi amna na mako jur. nga ne maay baayam de sen baay ramna ma may ma fi remplacer sen baay. mo musa deg nga li ak xoxor nak mi ngi bëgg am ci yeen te kenn ku ci nekk nak dencal na la lo xamni suma ko waxe nga ngeen bàyyi xalé yow mi ray waju bax ab ka deug nga. bu mag lañu waxante won ak li nga wax fi ray du ben jërëjëf jef it yow mi nak ab caga deug nga. mu ne ab caga deug nga la la wax. li nga nal xamna ko. luma nal naal li nga nal li nga nal xamna naa li ma ba pare complot na xale bi day génn dëkk bi yow imaam yaa ko wax na xale bi dañ ko indi dëkk bi yóbbu ko police Bambey lu tax ngeen di génn doomi jàmbur yi fii ci dëkk bi nan na ngeen ko yóbbu police Bambey ah doomi jàmbur yi ngeen di génn dëkk bi pour lan yow doo original sénégalais yow doo original sénégalais nga ne lan say këyit keeñaa yee ci ne yaa mën a meew keeñaa yee yaa mën a meew lu tax falo ñu la imaam daaw fii man maa la seet dañ ñama seet ko ba xam mat na imaam bi ma la wëñ ba tee foofu dara baaxu fa moo keroog ba nga ba nga ba nga mandee ba ni xulaan ci dëkk bi. waaye loolu sax maa maa la maa ko diri ba ci ba ci. ah te nag ah ah, ah ah waxee andi wax ah, nag. wax nag mooy andi wax. yen ngeen di cagay taxawal ci dëkk man di sutural rek ngeen ngeew ngeew yow ñaar ñaata jabar nga amu dem li tax say jabar dam xam na xam na ko ñaar dong la ca kenn ku nekk suñu jikko ay ay lay da nga mat lawul ay yow yow ba ma ngi dem yéen ñep ku ne suñu nga say dal sa bu ne ku bëgg ma ta kama lank ya mëna mew samay doom defu ñu dara da ngeen ma bëgg yow mii lu ma leen doy ak sa karam gi du ñu rek bëgg baye bon da ngeen ma bëgg ci ca ma leen bëggantum ma yow tay bëgguma mom la bëgg way yow ki kii Moussa Moussa jogol ñu dem nañ dem way ñaar ñi kat ñoo bok ñoyam kii ku ñàkk jom la kañ ku mag kañ ah, ku la gis ak sa leel bii du doon kub doo daan xam ne ku jom nga nga da ngeen dem police Bambey xale yi demuñ fenn fii la ñuy toog dégg nga li ma la wax soxor nañ bay bëgg a dee kii ñu ñu suturaal ko rek na ko yaay ba jiite dëkk bi mu bëgg a xaabaabal ka ca des keeñaayee la dëkkul ci dëkk bi baayam gana lee Moussa keeñaayee mooy baayam

Ah, kenn nekk fa boo ñëwee ma jox la néeg sama kër kenn nekk fa boo ñëwee ma jox la néeg jërëjëf sobe yàlla jërëjëf ngoy uh-huh. jërëjëf ngoy niil ma xale fu ngeen ma fa jaar damay tegg man nañ maa kar de man de jaaxle naa ci gone yi su ma yeggee wax ak ñoom Baye Moussa damay wax ak moom rek waaye li may wax moom xamuma ko ndax sama doom yi amul lu ñaar képp ñu ni leen leen yóbbali su Bambey te dëgg-dëgg jaaxal nañ ma ma de gone yi jaaxal nañ ma njànku ngeen ñëw wuy si a fi njànku yow gariwa ana yow kenn mën ko tut ba nopplu bee doon daw mi ngi dëkk ay gari moo fi mel gari woo daa ba njànku ñoo ma doog a wax li may soxla gari woo ay man sama biir bi moo noon moo noon daw woote dong rek sama Je bi day daw boo ci toppee di ma woote ma di ko dàqee du ma fa kasalu Je du ma ko jàpp nag yaay waaye moo fi mel njànku jabaay gari wo bu maa ngi Je ma waxal maa ngi lay jég ay tànk kay jégul borom dag bi ñëwoon na fi kalaamay Je ma ak yéen yéen ba ma leen masaa yéen ne leen dem leen ca tool yi ya. ngeen ne ci dëkk bi di rey bayi jambori yi di rey xari jambori yi <coughs> di def lepp dem ci marché ba di sàcc di tol bari musa mo mën a fen dëgg dëgg dëgg dëgg du li may mi ngi ni eh bu mën a fen dëgg la di fa mën fen nak bay musa di fa mën wax dëgg yow bay musa bu mene fen dang koy wax bay musa ku ne xamne na dafa mën a fen waaye wuroo wax bay musa dafa mën fen bay musa nak neena bala ngo na ngeen gën dëkk wala mom mu gën def mi mom nee na bu ngeen fanaane suba dana ñu yóbbu police Bambey man ak yéen. bul tax ma dem dëkk dem kër Baye Moussa génne ko waay. déedéet Baye Moussa lu wuñ fii dara. Màkka laa leen di yabal ñoom ñooy gën ñoom ñooy gën. Màkka laa leen di yabal seen kër di jaay. ñeen ñii yéen a def gën dëkk. am na lu mu wax léegi. lu mu wax léegi koo ñuy yóbbu. nekk Mbàkke maa ngi moom noo bokk ndey ak sama nijaay alkaani. alkaani noo nit Mbacke di wëndeelu rek ba sama papa deewee baalal kër goo nga xam ne ni kër gu rëy la ma nga ca biir kër ga appaleelu leen fa dara yéen a bokk kër ga ma ne xawma lu dul ñaari góor muy yéen ñaar ñi képp ngeen laay may sama wàll ca kër ga su ngeen demee nag na ngeen yem lu mu leen def loo na ngeen ko def lu mu leen wax loo na ngeen ko wax ngeen kat jikko ji ngeen yor si bu ma ko yoree Mbacke ci kaso Mbacke gi ngeen di dee te man day duma leen seet si duma ñëw kaso donc kalau ndax yaay nak buma maa gee teg ma nga bunyi ne sa doom moo rey fet bu wax fit man mi maam fit wax sa waaye fit ci lan moo man mi fekk ñaari je takk leen te kenn xamu ci moroom xam nga bu wax fit man maa tax sa waaye defal naa ñaari jeeg quoi day jabar boobu ñaari te man mais man caba laa xama dëkk ba fële ca laa ñaar maa ngi faat beneen soxna suñuy wax kole takku mbokk la maa ngi soxna de ngi jabar nah, ma ma xamu ko caba xamul moromam caba xamul kole kole xamul caba li may wax mi ngi nii amoo gat lu lii laay maa ngi wax pareegu ma nga naa ma maa rëy fit maa def nii fit fit yeegu pare yow kay li nga wax dafa leer nañ kër ga yéen ak seen nijaay yéen ko bokk du yàgg moom yéen a ko bokk ma bokk ndey ak loo bokk kër ga nga sa wal waa waaw may naa la yeex na tag ma kay ma fii ma xool jom Sénégal day dellu ginnaaw Mbacké jëm ca kanam man nag déw ma Mbacké nag ah ah man déw ma Mbacké de bàyyi booy loo wax man jaan ya ya ya saa ndey dinaa la ci dëkk bi nag di dem Mbacké nag man dama laa ñëwantal li man ci dëkk bi demal rek baax na demal rek. eh bu fi jooy waay demal rek boo jooyee di may jooy waay ñun ñëpp jooy waay boo ñu jooy la ku ku kuy nax sa morom. man man man damaa na dem Mbacké amul toogaay di may dem Yamin Karim ne waay. eh Mbacké booy Mbacké ñoom baay bu ngeen demee Mbacké indaaleel ma sama tubay ji nekk ci rondal bi wala ko waa xaaral ma dig sol ko waa. ñoom ñaar kenn xamante wu sekkaral nag sama diggante ak yow. ñaan xamal leen hmm. hmm. ma hmm. la man moom nag sa waa yaama man. yaama man mu yow man damay kenn. mais Mbacke. na nga topp sa ginnaaw di jaay. ah ni jaay ak na nga ko def lu mu la tere na moom day nekk day nekk mbàkkee di yàppax yàppax man xam rek man ma ca dëgg dëgg joomal nañ ma man mi ci dëkk bi rek di jaxase rek jaaxal na ma lool. Congo Togo gi may dem ak ay gi waaw li ma fa damay ci boppam ci dëkk damay nekk ca la ma neex pàccal sama li ma maam mais sa grand frère bi Mbaye Samb déggaatoo ci moom dara ñoom Mbaye Samb Mbaye Samb vraiment man Mbaye Samb mënu ma ko comprendre Mbaye Samb ba mu nank saay ba léegi mënuñu koo kenn xamul ci lu mu ne moom moom man dama ko xool xam na ne kii du kuy toog d'accord comprendre naa ko mais yow yaay petit frère am xam nga am na ci yu bari yoo xam yaa mën a dem recevoir yàlla xam na ne booy jën naa lu ne lu ne fa nga koy fexe fu def ko mais Mbaye Samb moom moo dul deful benn signe deful sax def pour ñu xam ne nag. waaw si non d'accord nit boo def dara da ngay fekk xam nga lu ñu naan dimbal nag fekk na ko. waa Mbakke dina nga xam ne lépp dëgg la ginnaaw. waay waay waay waay waay defal def. yow nag boo def daf lu ba dam fii nag yow li du ah, yàqu. du yàqu bu ma doon bu ma doon def ci patuwaar sax dinaa dem ba man damaa garaaw. diil nga man ah <laughs> man damaa garaaw de. coow Mbakke dafa. sensé de la forêt. barle de la forêt. man yow bay defaral nga yoo xam ah, waaye dem fii de moom tax na da ngay changer comportement de. bu la waa Mbacké di di xam nga dañuy wax hmm. mais dañuy ak les trois cons. Ah. ndax collé moo ñëw rek motali yëpp. dañoo hmm. war a changer comportement. eh man def naa comportement de man nañ nga ko ne. léegi dama leen di yedd nag ba léegi leen. eh bu dal waay. Eh, xol gi day set. Eh, ah rekal waay. eh eh rekal waay. eh Yamin. wala hmm. su bambaye ngi ñëw de. doon mi naa ma ne daanu woo jugal yaay maa ngi jéglu nag kii dafa saay saay jugal bu jugal waay xam nga ne daan ah, waa dem nañ si ñëw ak jàmm ak salaam dem nañ boo ma woolee dinaa jooy waaye waroo woon maa woon. nga xool tey maa ngi tegu ci di xool saw rek nga nga woon ma boo ma woolee damay jooy waay. ngeen demee ren ngeen góorgóorlu. maa dem ma xewaay. parce que maa dem ma xewaay. waaye bëgg maa dem ma xewaay yow. waaye bëgg naa dem ma. xam ne ne mujj naa bëgg a dem waay. jabaayoo janku bu leen fàtte li ma leen wax su ngeen demee na ngeen topp seen nijaay lu mu def loo ngeen def ko dem ak jàmm dikk ak Jam dem leen. lu waay doon jaay tey mu lam. waaye nag bay bay bay mu am. taxaw di dugal nga ma cee boole ma bay. ay bay Moussa ñëw bu taxawoon rek ma noq ko. eh bay Moussa taxaw dama lay may suukar waay. waa Mbakay ñëw naa de. Eh, eh neen ñëw nan nag yow. tey waay ñëw nañ waay xam nga ne yow gën jëm li ci la. ah wax nga dëgg ñun ñaar dañ noo xaaj wax nga dëgg. Eh, am na nii lan defoon ah, yàlla jékki-jékki rek. jaga dagale ñu far mu jeex rek. waaye yami bu yàlla defoon fii nag. Eh, kon nit kon noo koy def. dama koy saraxe ko saraxee ci jaka yi ma def loolu bon de doo ci jën bu rog. bu rog ndam damay nax yàlla dong dama koy nax dong. ah da ngay nax ah, yàlla ah dama koy waaye xam nga ne kat duma ko gwasa ba gwawa kai kai kai kai kai gari min yawai kana dole bi ne kin ak na fam di ngay ñew fi nak dima la bëgg sank ci dibane ko la xaté di nga xam de yow nga fekk rebi nak jambur xamoo nu rib rebi no rek nga ne dikkal nga sam way dikkal jamin fan yëpp du yaa ngi rebi nak jambur bi dina ci sang ñu may japp dima do ku lay do yalla xam ne rebi nak jambur bi duma ci sang ñu may japp dima do man duma ci lu la do xam nga jëm ba leg ñi ngi la xana fi juróom benn fan dinañ ko gis buñ ko gisee kay ma doog a sax. eh du tey lañ si fii nga fan yii yëpp ah. lañ tam lañ te tey lañ ñu te fii nii Touba la ñu naan magal si daan duggee laañaat di magal ci fii ñoo ne Touba kenn du fay ndox ñëwal nga sang sanguwuma yéen it ñëwal sang sanguwuma xanaa rek bi nëb jàmbur bi. neexal la waxal bàyyi booy ñëwal sang ñëw sangu. <laughs> li nga sax eh gaaw xam nga lim doonoon def ma bañ yaay di kàddu ak dog moo taxoon ma di yàlla muñu su meekul gaaw yow su be su meekul su meekul ma waxee rek yamin di di ma di jaay ne di ma am doole xale yii nopp nañ ma siiw naa am naa xaalis su meekul tegil tegil tegil. waaw réew la. Take it. Ay, Devon, look away. Devon, look away. Hindi yan. Devon, look away. Devon, look away. Ay, mama, sumil. Sumil. Devon, look away. Devon, look away. Devon, look away. Yang itili masayira biwai. Devon, look away. Acha sumil kun. Bumi. Man, man na mga sanggol sa ilan nga. Dad, muk. Man, masanggol ko. Sumil bumi. Wow, chicken dom girek. Tuwan. Ngayon, dala lobi nga tekigin. Ara mo tekin lobi. Acha tekan ko, yep. nyuat bukan buang erek yamin dosang hamur kuisang bok kuisang, dong ben bok kuisang dong kamu imam ben bok kuisang, eh magam jemung dua gue ne dunia orang jek rang ci rebu dama taxaw be sang ba pare ko do magam jemung ka dogo ne

Touba kenn du fay ndox. waaw léegi da ngeen ne seen dëkk dégguñu ni tuubaa kenn du fi fay ndox. tax ku ñëw rek lu la neex nga def. waaw ndax waa Laañaar a ko mais dama laa bëgg a xamal ne la fii du laa ñaar fii Touba la sëñ bi mooy fay ndox mi. Eh, du sëñ bi am na xaalis sëñ bi ay eh, nañ nañ gën a yàq sëñ bi dafa am xaalis. te naa la xamal leen na waa Safinatul Amaan ñi ngi def liggéey bu am solo fii si biir Touba. te nag bis buñ la fekkee fii ngay def lii su boobaa dinañ ko lijjanteeg yow <coughs> ah taalibe day jëfe ndigal <coughs> di bàyyi tere bu dee li ngay woote dëgg la ci yow li sëñ bi di bañ da nga koy bañ li mu bëgg nga ànd ceeg moom waaye ñëw di yàq amul benn njariñ ñun nag dañoo war a jëfe ndigal te waa Maawu Rahmat ñoo yor wàllu ndox mi képp kuy woote ni ab murid la boo ñëwee fii si Touba da war a sellal waaye yàq waru laa tax a jóg xam nga dang dong moon ji yóbbu ba am ñoo xamne dañuy magal ci fi Touba bu ñewé dëkk ba dañuy def confirmation ak réalisation âge ñom ñone Touba kenn du fi fay ndox tamit jot dina borom état yi nga xam ño yor fi ni keur nek fi borom doole dañuy yak ndox mi motax ñun ñu ñew doole ñew di yak motax ñu ñew di yak ni ñep ñoñu nak bu ñuy yak ñi ci def ñew di yak ana kan mo wara mëna defar dëkk bi kenn. lu way di wuy wule da koy nuru da xam nga borom dekk bi ci bopam Sëñ Tuuba ken gënu gis nga li mo am ni sama mam ci bopam defa demone géej gi ndar di nan di ko jëma defoon eh, di ma wax dima kay wax nga nek fi di jéefaani sama mam do bay lolu ki nga wax ku def lu baax diñ lay waxal lu baax mu dem ba géeju ndar san fa dara na da koy top ndo pour am ab sa safooroo ko fa jël Sëñ Tuuba jën way dom la amin bu sel ñun mom la gëm way jang fi bo fi nekk dit fi nekkee jànku mu toll nii lu ci xew moo xam yaa ko def moo xam defuloo war na gaaw a jeex ñun sonn nañu nde soxla wu ñu xam amaka kamu tooñ ini a ngi ñuy gaañ metti nooy maa dem alhamdulilah xaar borom bisaab de si ñëwee ma jëm koo alhamdulillah naa def maa ngi sant alhamdulillah barkaala loo bëgg mbuus bu ñaafu déedéet man déedéet déedéet sëñ bi man jënduma bisaab de dama laa soxla cent francs laa bëggoon yéen ñàkk ngeen fu la torop waay yow yow ku réew nga ku réew nga ah e da ngaa réew laa la wax yow magum jëm muy jaay bisaab nga koy arrêté naan ko ay ay cent francs ki ñaar fukk looy dee cent francs damaa bëgg ñibbi dama ñëwoon def si kii te amuñu kii léegi sama paas ma lekkoon ko ma bëggoon nga may ma cent francs pour ñu waaw loolu mën naa ne mana franc yi mën naa ne mën naa mën naa laa may safra franc eh, mën naa laa may lépp safra sax waaw waaw ahmad mana ilaha illallah mën naa ne bu baax a baax a baax a baax xam nga lii kii ñaar téeméer la ñaar téeméer yi mën naa la koo jox ngir paasu fukki fan waaye nag à condition condition waaw waaw à condition kay condition bu mel na waaw xam nga man ma ngi dëkk fi ci boori mbalaxteen gii fa laa cosaanoo fa la sama lepp ne yaay may dégg dama ñew fi Mbàkke nak ci ben néeg bo xey spécial pour yeen élève yi la looy asafurlaa loo ma ko asafur la lo yaay dégg bu fekkee nak d'accord nga man na la jox ñaar témèr yi nga pass ci passu 10 jours ñu dem ci néeg ba ñu defante lu baax ndax fi ne nii sax man sama yaram fi ne da koy ndax gëj na ko def ci ben élève la ko mujjee woon def fi élève élève élève bu jàngé Mbàkke 3 sa 1000 francs nga ma jëndee ko amul fóot sa yow ma lay arrangé rek ngay déranger wu yaa xam mooy yow dañoo fuuy dimbali dong. garaaw léegi garaawul amul ah, kon kay baax ma defaroon léegi am am am ñaar bisimilah nag dem na. Eh, eh eh tegal fii yow yaa bon yaa yées. Kamu eh, xam nga na ma safur la wa yow yow soxna si yow ya bon def la lu bon sa àdduna du yaq nga yaq sam jang, yaqal say wajur ngir lan ci ki deureum kesse e eh, dama la doon ñaan dong. Eh, xam la la wax xam nga na ma dama la doon ñaan def eh dugal fii la wax bon ba de xam nga ni yow yow ya yaa mën yaqub der yow yow da nga yaq sa deru lanar lanar bozo bozo Tarawan alias Mugtabi. Yo, lanyar, lanyar. Eh, kami ko na. Dinako kami. Buwaligay nga man ko doon. Dinako kip. Kami ko. Mana dinako kip. Baca kayo ini. Bozo, bozo. Tarawan alias Ilyasa Mugtabi. Yo, lanyar, lanyar. Tarawan alias Ilyasa Mugtabi. Ya! salaamaaleykum yaa ngi ci jàmm xanaa ki jàng léegi yaa ko doon doxaan kee di dem dafa rafet waay dafa rafet kee de lu mu rafet rafet rafet rafet perte na valeur am bis ni ki tey oh. kan eh waaye yow élève lu muy fàtte wala ah waaw yow élève la nga nan élève élève ñewal kon mu gaaw ci lum yaay ngi dégg dafa ñew taxaw fi nama salam salaamaaleykum ma ne ko maaleykum mu ne señ bi dooma may ñaar fi ma passé dama jangi ba wàcc yaa ngi ñak pass bu bëggoon nga may ma ñaar fuk ma koy seetlu rek ne ko man na la jox ñaar téeméer ñu ñu dem ci neeg bañ defantalu bon xalé bi ne ma ñooñ dem la ilaha illallah ci saasi la laa wax automatiquement gone gi nam mun kii def nga ba mu ba def na ba mu baax kay defee ba mu baax defoo ba mu baax yeen yeen yeen gis nga gis nga xam nga man limay xatte ni li ma leer ba leer mooy yéen ñii fi ne bu ngeen daje woon ak moom. te eh, di may dem kay. Eh, eh, xoolal jaar ni yow tam. nee naa la xamee ko bu baax. boo liggéey boo ko xamee nga doxaan xamee naa ko xamee naa dama ne ngeen dalal seen xel yi. dalal leen seen xel te ngeen dellu seen xel ci yàlla te ngeen xam ne ay góor ngeen. ah xale bu jigéen bee avenir am la am te jigéen dafa war a fonk avenir am xanaa xamoon ne ñoom ñee di jàng ñoom ndaw ñee ñoom ñooy doon ëllëg. kon tey bu ngeen bu ngeen leen defee lu bon ñoom fan lañ jëm olof koy wax na lu leer nañ ko fekk ku baax fekk nga fa ku bon jeex na te ñun ñu bon lañ ah kon ñun ña baaxu ko de waaye def ko mu baax loolu ngeen def baaxul yow looy jaay yooyu yëpp waxuñu ko mais yëpp seeguñ ko bisaab laay jaay bale ngaa ñëw bisaab laay jaay waaye yéen yéen yéen yéen waaye yéen yéen yéen yéen yéen tudd dafa nga ne lay wax suñ tur nga wëti def nan yamé nak ñako gis na lé ah man yow yow yamin wax ko sa tur yow man duma la ñàkk laa tudd man duma la wax jabaay la tudd duma la wax ne ñàkk laa tudd duma la wax jabaay la tudd nga may wëri mo la ko wax fu ngeen jugé yeen fu ngeen jugé la ñaar lañ jugé way ah la ñaar ngeen dañuy wër suñu kër ni jaay ji tudd alkani fay lañuy lëcc alkani fay ah alkaani fay mooy ku isinu isinu kani bi fi fi ci ba rond point excusez moi bobu yurut isinu kani mom difa jugé la ñaar rek ñëw fi xaw ma alkaani fay de xaw ma ko yamin xaw ma ko xaw ma ko man damay jaay bu leen ma tardeel jaxawal jaxawal dañoo bokk ci njaay mi dañ cee bokk da ngeen di jënd waaw duñ cee bokk gis nga yamin bi ñoo tooy nga ne lii bu yeeg bisaab la waaw damay jënd léegi tak ñaata mbuus ñaar fukk la aca jaay ñu yàlla yàlla xam ne njàngu njàngu xam ne yàlla yàlla xam ne yamin yamin xam ne yàlla yàlla am na ñaar fukk na ñaar yàlla daa tari am na ñaar fukk man ci naa xam naa daal bu nekk ci biir rek saab bi neex na de hmm? ah nekk na ma gum ko nag baax neex na de ah waaw léeg-léeg léegi nag kaw bañ na ko ba dangaa wut rajo mu lay waxal li jaay fayal baax na baax na baax na waaw du dégg ne bisaab bu neexul bul bu saful suukar. waaw waaw waaw waaw non man laa jaayee. parce que sax laa jaayee waaw bisaab bi saful suukar. neexut. te du da pare nag saful gat. duñ fay gat. man man café wu ma yooyu de. waaye ma ne fayu na ko la wóor na yàlla café wu ma loolu. ay dugalal ma ci mbuus gi looy dugal. waay fay la ma sama sama sama ñaar. dama lay ma dinaa ko ci yàlla dama lay doon. eh Yamin gari mi ne wa. Yamin bàyyi jàmbur bi Yamin bàyyi jàmbur bi waay. waaw lijjanti situation bi waaye. Eh, yamin gari mi ne waay. gari mi ne gari mi ne gari mi ne yamin. gari mi ne eh, gari mi ne waay. gari mi ne bal ma lijjanti gari mi ne. mais gari mi ne. lu xew lu xewati. dañoo ñëw fii ne ma salaamaaleykum man leen maalekum salaam ñu ne ma dama bëgg ci bisaab bi. waaw dégg ma jox leen takku bisaab benn kenn ku nekk mbuus bu ñaar bëgg ñu naan ba pare ne ma bisaab neexut. sa bur suukar duñ fay. sëñ ne taal rajo gi rek nga dégg taal rajo gi dong mu dégg. ne taal ko ngir yàlla mu dégg. taal ko mu dek ne ko taalaat déedéet taal ko mu dégg rek man boo ko taalee boo waxee dégg ma fay la. voilà man maa leen ko ñaan rek. maa leen ko ñaan rek. maa nan ma fay nan ma fay. waaye di ñoo tooy. sama tax bi boo ko joxee kii day indi ay yow ay heure de jaay bisaab gis nga gis nga gis nga ah. gis nga nu neex eh, yaa ngi naan sama bisaab bi yow heure de jaay bisaab bis bu set danga koy def dëgg yaa ngi naan sama bisaab heure de jaay bisaab bis bu set danga koy def sama xaalis Seex ay heure eh. de jaay bisaab rek ngay def yaa ngi dégg booy jaay bisaab man man ko ko li may jaay neexut neexut li ngay jaay dara baaxut ay ingrédients yi ngi ci def yi dajale ko ñamal ñamal gis nga ni mel kon xam nga ne neexul ñi nak ay ay ay séeréer nga dajal bu suba ay njaago ngay dajal dinañ wulli sagat gi ba nga bëgg def dee nëwut yow man maa ngi jaay sama taay yow sama jamm nga bëggal yow yow mom sama jamm nga bëggal fi mu tollu ni lu ci man ci xew moo xam yaa ko def

waa ah bu naaj bi tàngee kon maa ngi dem de ah kon ñëw leen waaye yéen fii ngeen génn ci vert jaune mais rouge bi daa manqué manquéwul de wax na dëgg nag manquéwul eh du boobu pexewal nii pexewal nii rek ni ñëwal waaw kay yàllaa ñu boole wax na dëgg nag ma ne ko vert jaune yàlla xam nga moom bu ma galee man dama lay daal di def nii wax na dëgg nag. Ah, ah, xam nga muy wet tontu bi nag wax na dëgg. waaw ngeen may doy. affaire dafa nekk ci mhm, man man am ma ko man kese ba pare. ñun ñaar ñëpp ñoo la bëggandoo waay wax ko laa bëgg. dañ laa bëgg dañ bëgg a doxaan. Mhm. ñun ñëpp dañ bëgg a doxaanandoo dégg nga ñu nekk ak ci Mbacké jii di levage Mbacké Mbacké di neex kenn du ko dindi moom day réer rek nag nag xooloo ba set. war nga na gonag mbake ci boppam. boo koy doxaan day retaan. dox na dëkk wax na dëkk gonag mbake amul. Hmm? waaye man ma ci jaaxal yéen ñaar da ngeen maa attan. Eh, attan nañ la de ah, ñu la attan. man nii ma la attane. di kal ma wax na. di kal kii eh eh kii wax na dëgg at noo ah. ci diggante bi. Ah. te loo woon ni bi ngay ñëw bii. yow loolu ah, sa fan ngeen jógee. ñun la ñaar lañ jógee. la ñaar. Mm-hmm. ndax di ñoo jógee ba la ñaar. di hmm. seet suñu jaay jutut. ay kaani bay. Mm-hmm. dañoo réer. ginnaaw ko ci yàlla moom la ñuy seet. dëgg yàlla ba léegi ñu ngi wax wër bu tukki de. boobu tur moom ra. Eh, yéen kon sonn ngeen de. torop torop ndeysaan da ngeen a sonn waaye kaay leen ci biir ma leen ndox ngeen naan. yow baax nga nga baax mais nag bul fàtte de. dañ lay doxal. non amul problème. yow sax. man ay ay ay ñu ci

sama gani tay yi dafa fa non soo mu ngeen nag day day moom da ngaa sonn. waaw waaw. kenn jaay na nag sama xamal pour la dëkk. da ngeen di waaye da ba ngoon ngeen daal mun koo wër. ngeen gis ko fi mën a fanaan la. waaw bu leen waree fanaan tamit ñu bokkal yow tëdd rek. ma dama am jëkkër nag. ah loo ba jàmm. de. lan la. dafa ba ñu la doon daje. non non non bu sedd ko. moom damaa doon doon doon. man de sama gan yi tey yow fu ma leen di yàqalee. li ma yëg la yëg. <laughs> wala ma ne mi naanee ndox mi. dina ko. asalaamaaleykum. ah Kuba. Kuba ma ah. wàcc na. ku jëlee ñi. fii laa leen foree. waaw. <laughs> Ah. waxoon naa la ko de maa ñëw waxuñu dara. xamul naa la ñu leen ko. mbedd bi laa leen fële tooy. yoo xam nga ñu. Eh, eh, ni nga bàyyi la bi. eh eh jóg leen. sama xol sama jarbaat la. sama jarbaat la. eh eh, eh dafa wax dëgg waaw. yow rek nga jël rek ay ndeysaan. waaw waaw. waaw li am na. waaw ma jóg ma ci. yeggal suuf sama añ bi ba pare doo ko mën a waxal ñii mën ko eh, eh, eh, am Maguette daa ah. a ah. doxaan moom. Ah,

ah bi ñu gisee donc man nekkul seen yaay ba mu ci jàmm. nekkul ci jàmm dara moo tax mu yabal ñu fi nekkul ci jàmm a bi yéen ni ngeen mel ba léegi yéen su ko wala ah. ma ne nii a mel. waaye yéen wax nga dëgg nag ndax waxoon na ma boo dikkee Mbakke da ngay changé. Kopartama, Kopartama, Okay. Ça c'est sa par association yep. ndax wa mbaké ñom dañoo xawa ci quoi deng non c'est que ça président de la tokol gu nor quoi nak deng ni nak nak wa da ngeen do sama fula dama fay deng nak di ngal ngal ni rek da ñun la ñaar deng sen sama maire ngoya ñew bokk kër xam nga sax bokk kër sama nijaay nak mom du wax dëgg nag doo suñ morom nag moom waaye nag da ngaa xaw a ñëpp sa xoon nag ni gars yi ah dégg ko nit bu ñëppee xoonam dañ ko koy wax nag eh, xam nga man du ma sa maa ngi maa ngi jëglu nag dégg léegi nag li ma bëggoon mooy man nga lijjantil ma liggéey mm-hmm. nga lijjantil ma ay fermeture mbaa nga lijjantil ma ay ba man daal wax dëgg yàlla nag ci wàllum jigéen rek ci laa sawar nag ndax may mën a indi see ma ci kër gi di leen ñappaaru mm-hmm. ah eh, man eh, loolu man loolooy sama fulaak sama fayda de man bu ma xasee wax sama fulaak sama fayda dootuma waxaat li ma bëgg ben donno len ma de donno bu ngeen ma donno da ngeen melni bo lima bëgg mom dafa bari wul ok wax la ki ma rom ci kër gi lepp da bëgg nga takal mako ma tamle nak takal la ka ki ki zambi naan mi xa da nga dof ki lay sa morom yo xa da nga dof ña dima bëgg nga wutal ma bam mo xamanteni mo gëna gaaw ci mbake ndax sax bu mu tax tux tux ji gaaw ak yeex bu ne ben yoon rek na na dem yaa ngi dégg loolu laa bëgg moo ma yëkkati te suba suba suba laa ko bëgg mbaam nga bëgg jeex na tak mbaam ak saret rek nga bëgg. rek yow moom bu soobee yàlla bu subaak jàmm. dinaa la wutal mbaam ak saret ngay dawal di liggéey. yow dinaa la wutal ay baa du baa nga bëgg. dinaa la wutal ay baa am na sama xarit buy jaay ay ay yére ki yooyu dinaa ko mu jox la ay baa ngay wër di xëy di jaay ay baa loolu nga na seen ko sol loolu bu soobee ngeen ko mais nag seen yére yi ngeen sol jóg leen ngeen summi ko dugg ci biir bu ngeen pare ma dugal leen seen néeg. waaye de. loo fàtte nijaay nag ko leen lay laaj de. wax nga dëgg ko leen. Eh, eh, waaye ko leen koy laaj waaye. nijaay xoon nag. ña nga xam nga moo nar a ñëpp soxoon. wala bu dikkee mu bay Sadio. waaye ah. ko amaliko ah. nañ ko amaliko. Ah. amaliko eh, ci eh, man moo neex. xam nga Fatick ba moo dëkk. nga yi jox gële duñ la nopp. doo mën a bokk ma xëj. doo ñapaaxu. ah damay nga xëj xëj. ba pare bay ma ànd ma xëj tuuti waay fam fam ci fii de. Ah, ni ngeen maa ba pare dox la nga xëj. ma xëj may musuwaay. ah Mbacke boo taxut kenn du nopp di. da nga yaakaar da ngay dëkk rek xale jigéen ñu topp la. bii galoon ndox. affaire bi neex na de. may ah. ma ma ñamaat. ndangu bul yàqal bëri ndi ko boy. dikkal waay na waay. dikkal ñu doxaan la waay. njëkk la wax. waay du duma lay doxaan. ah bon ñaar dan laa bëgg a doxaanandoo ñun ñaan ñëpp ah, dëkk bi de ñun ñaan ñëpp ñoo lay gisandoo la ndobandoo la bëgg laa doxaan nga nangul ñu boo nangoo rek ñu dem ci biir néeg bi maa ñu dem ca suñu kër ni jaay ñu doxaan la ñu ñapaaxu la loolu lan bëgg de boo ñun la nga do di fa tam di wax wax joo xam ne sax waxi dof la mais tey di fa wax waxi nit tat tat ndi ndax xoola kaat kaat ge ñoo ko moom waa jee diñ ko ko abal donc na def na mujj tey ma leen di romb ngeen may woo ak seen i ay déguisement yi la yéen yéen a war a doxal. ah kan boobu du ñoo doxal taxaw eh ma xool fu laak fay dana eh maay boy pardon eh boy fii eh njàngoon nag yii yëpp yàq doxaan bi xam nga lan moo tax nagul ah. xam nga ñun bu ñuy da dañuy dox rek di dem di di awaat wax nga léegi ni ñuy dox di arrière nit ñëpp wax nga mbaxe boo bëggee da ngay dox di arrière waay bu dalee ci kaw nag eh waay nañu waaw ah, booy ci loo nekk yow soo ba léegi maa ngi lay woo sama compteur bi sama courant bi moo am problème xaw ma affaire yi fan la jëm naa ba sonn ñëwal jàppale ma ci yow tamit waaye ñëwal waaye bàyyi sa yu ngay def ñëwal ah. ah booy teg maa bañ def noonu yow tamit kër gi yaa ko installé. yo xam nga li ne ci kër gi yépp yaa ko installé jëruma la koy wax kon bu amee problème yow yaa xam fi ngay jaar pour nga defar ko man xam lu ma jaaxal yéen bu ngeen jekkoo rek jàmm quoi man loolu moo ma jaaxal loolu moo ma jaaxal lii boo ma ko waxoon au début kon xoolal jëli naa arona mu liggéeyal ma sama courant waaye amul problème taw du jib man danaa wuti ku ko defar amul benn problème ah amul problème ok ok boy. nit de bu dee woote téléphone danga koy bay mu wax ba pare. man ne li ngay wut de defar na yàlla indi loxo nag mu taxaw sa loxo sa loxo ndi joor wala loxo camiñ. Mm-hmm. Mm-hmm. wax na dëgg de wax loolu de moom. eh yéen lu nekkoon seen soxla. bon xanaa waxoo da ngaa am problème mu courant. bàyyi rek liggéey boobu ngay wax muy électricien. ah ñun dañ ko liggéey boobu mën na liggéey boobu du dara waaye yami. ñun ñun ñun temps yi ni nekk Europe ak Espagne ak. eh taxawal ma wax ko fi ñu nekkoon. Amérique lañ nekkoon. Amérique waaw kay. benn quartier bu ñuy wooyee Daaru Salaam Mbabareel. ak Mbabareel ak Ceenu Maam Cheikh. ak Ceenu Maam Cheikh. fépp fa la nekkoon di liggéey. wax ko liñ fa dal waay. ñu ko noonu liggéey eh, torop. Eh, eh, may leen ma mag mu toll man du ma mhm. am problème di wax sama wax ngeen naan ay yu ñàkk. xanaa waxoo ku la liggéeyal courant. waa léegi moo xëy ku ma courant loolu da ngeen may tax. ngeen ñëwal dara ñun du ñoo mënoon a liggéey courant tigi yaa ngi dégg tubaab yi ñoo ñu catu. ba maa am ñetti bopp sama rak ji am ñetti loxo saa ndey téléphone na ñib si leen loolu doga ñu jàpkaat ah. kon daal dama yéen da ngeen wax ni kon li may liggéey lu yéen man ngeen ko man nan ko da ci fula professionnel nan ko waay professionnel yéen laay wër ñi nag kaay leen moo leen gis nga noonu nag ñun ngay wër man na ñun ngay wër gis nga noonu nag dama koy teel a wax. ci ñoom tey ñu ngi dikk nag moom. dañoo nekk ji courant de. ñun dañoo mën a liggéey nag. i bay looy. ngay dee bay damay xool waaw doo tey. wuy ma waaw. mais xaaral ñu wax ñu wax ba pare ah. lu ñuy wax. a xaalis bi. xaalis comme la loolu du problème bàyyi ba ma ba pare. parce que ba pare ba pare waaye. léegi wax ji leen dong la mhm. dangay nga indi paaka ak ndox nga tooyal ciment rapide nga indi ko yaa ngi dégg bala maa prévu ciment rapide bi nag amul problème ba ngay daal soo ndox nag mu gaaw de defal indi ndox waat hmm? xam nga courant dafa yomb a liggéey ci boppam hmm? bàyyi taxawal ma wax la nag waaw xanaa eh bu ko ko wax ak bi jar na jëf ko ko wax mu ko jëf bàyyi lii mën naa koo matak sama gémmiñ rek dugal nii xam naa ñaari yow wala taxali dugul rek Ngayon kayo kurang jo, ang yan. Kurang dagaraw de. Ngayon ang dasi gilis. Eh, non na de. Hindi ko nagbay sa komi ngayon. Hindi na lang yaw. Eh, eh, eh, bay ko. Bay, ginagamit na. ba ba ban bàyyi ko. dëkk ba bu dee defar courant. ay ban dëkk ba nga naan waay kii di dee nga naan may. yàlla xam na ne mi ngi defar courant. eh boo fontoon eh jëlal jëlal jëlal. eh wuy ma. eh jëlal. gis naa ko si yàlla day dugg. eh jëlal eh jëlal yow. meew. eh jëlal. meew. eh, eh yow laa yor jëlal sa kii. taxawal meew ooy. eh jëlal sa kii sama nay meew ooy. ay eh, ci biti daw leen ci biti. doo ko fay. waay lu may fay ci biti nga may fay. ci biti. sama xol bi mi ngi mi ngi métti waay. waay nag dagg nga la waay. dugg si rek sax ay booy gis coow li de ak xale yi nii la. waay xaw ma nu mu dee xaw ma dafa sax fii bi xaw ma nar ma fii di ay. mais nag comme yow sa problème mooy da ngaa tàng xol. xoolal man bu may jógee village nan laa melan dama nekk une certaine personne boo xam ne ku con xam nga nga jël ma utiliser ma teg ma ci yoon ba ma ñëw na ci lan yaa ngi ci sa terrasse maa ngi sama building comme xam nga lan dikal jëlal xale yi nga utiliser seen moyen liggéey ci ñu am plein to morning bàyyi nga naan Mbaphe ren lan nekkoon yow Mbaphe ren nekk ci ginnaaw sëñ bi. ah raa gi damaa jàpp rek direct rek. dégg nga sama ba ñu wekkee ko. wala wala wala xool. Eh, a xoosu rek waaye wekkee ko xaw ngaa dee de. eh man kay yàqu naa nag. tey tey courant bi rey. Hmm, maa ngi bugg a magat nag. Ah. nga dofale lan la. waaye bul bul ma nax waaye. oui moom li nga wax dëgg la. mais ah. tax xoolal. su ma la gisee rek damay nekk. waaye doomi ndey loon maa ngi yow sama. xarit non ndaanaan nga ndaanaan nga. dama jege bul di ma sori. li nga wax laa sax laay def. merci beaucoup ok gaay. ok jëlal booy yi ah. waaw bul wax dara jël leen de. bul wax dara. ok jub du coow. ma ne fa nga ma dotee du tey ah, kii bi mu wax dëgg la de dama war a utiliser booy yi dox seen maay

dama leen dégg ngeen nan ay liggéeykat ngeen. oui danoo bëgg a liggéey nag. non ni ma leen gisee sax laa xam ne ay liggéeykat ngeen. ay jàmbaar ngeen. moo tax nag ma bëgg ñu liggéey man ak yéen. xam nga nu ma bëgg a def ak yéen. loo bëgg a def ak ma leen a dugg bëgg a dugal ci benn business. nga xam naa ne yéen ñu am fit ngeen. yow bay si ngay def waaye. affaire gi nag bala ñoo toppante dañuy wax ni ñuy demee ba pare. ah. ci ñëw. waxal. xam nga lu bëgg a jox. xam nga lu bëgg a jox pour ngeen ñu ñu business yi ay jam eh dekk ba la ñëk njëkk dem jam bay musa ak ah, waaju baax bala nga dem di jam bay musa ak waaju baax do ñëkke wa mbake ba pare. Eh, eh, eh, wuy leen ma wuy leen ma du jam bo xamne da ngay jam nit mu dé kon nak jam bi da ngay wax lu mu doon kon ñu def ko. wa deug leen xanaa da nga ragal li ngay wax bo non ragalu mo may ah. le mo ma ñëw xam lu ma bëgg leen jox pour ngeen liggé hmm. yamba. yamba mom nun koy def. merci. da ngeen koy jaay waaye dafa am nuñ koy jaayee dañu jox valeuru cent mille francs bu ngeen ko jaayee da ngeen am lu ci ëpp la ci ëpp yéen ko moom. ana yabaa ji waaye jënal yabaa nag ñu dam leen jaay dal leen dal dana ñëw may leen ma tuuti waaye nag moo tax mu bëgg leen dugal ci business bi. amul wala du yambaa lépp dal leen rek. yambaa. Hmm. système la. système lañ koy liggéeyee. Mm. système lañ koy jaayee. yàmba ak jigéen ñoo yem. jigéen boo ko dee jaay ci maay koy jaay. boo koy jaay ci maay nga koy jaay. d' accord ah. xaaral ma sa ginnaaw nañ ko ko rek. Ah, na maa ah, kon kay jigéen boo koy doxaanati bu bañee rek. nga ñuus ko naqal jimaayin mu nax waaw waaw waaw ah, kon kay jigéen ñi Mbacke yi na ko nax jimaayin mu nax suñ taala faal rom na ma suñ taala faal mooy sëriñu xaadim dooy ah sama xol set ju guy ah kooku Baye Fall te loo joxamut hmm, hmm. Baye Fall dëgg day mel ni sak faal wax nga dëgg de mbaa mu mel ne ma koy sax nag waaw waaw baa nga mel ni Omar du Mbuya o fati Pablo nga xam ne day man di ba buy dikk kër ga dañ koy jafoo day man ah kooku day mel ni sak faal kaa ñu jam la ci jam yi waay. sama boy. xamee nga <laughs> ko naa ko kañ. kii mooy kat. moom eh, a. waaye nag keroog nag dafa xaw na nuru mag nag te te xale bu. li nga waay. Eh, <laughs> non ah ñun xamoo fu mu ah, ah, ah. yor dañoo yoo xam ne da ngaa damaa ñu jam la ci. dañoo yor yambaa juy yaa. jamba a ko bokk. Eh, eh, eh, yow li la ñuy jaay tey jël sa ay li ngay wax ak ñoom. jamba ngeen yor yéen nag police jaay ko ba wax di jeex tak tak jaar ñu. mais mais ñi dañu dof xanaa. ok gars yi. waaw mais jo. comme li ma wax sa waay rek. Mm-hmm. parce que ins woo na mais li ma ko wax mooy man. Euh, bu doon sama bu doon sama sago vingt heures la ñuy dem lañ dem ba kenn ku ci nekk xam na ne fi mu toll nii Mbàkke dafa rëb comprendre nga te région de Diourbel laay wax lu ñuul wala lu ñaaw waru fi am kon lii ñuul ci soow mi nañ ko seet sax ah en tout cas bul sori parce que damay dem kër ga pour jël samay bagages yi nga xam jël naa tari bi indi naa ko fii nii léegi après ñu dem quoi vingt et une heures ah daam dong jël sama avias la bul wax dara waaw waaw waaw. yii noo ko waawaay. yaa ngi ci jam i aku ko fu la ak fayda nag danoo bëgg a dem. boo polisu Mbakke lañ noonu laaj te dañoo war a Aku polisu Bambay. ak bu la ñaan waaw waaw. waaw mais man police la. police ga kon kay yëf yi sa sa tegu na jeex na ya, tax lii lan naan wuti yàlla gën bu ni jeex na tax di ñuy jaay yamba yamba wax ko ko fu la dem fu la ak fayda nag waaw waaw te wi di gis nag bu ko ci xoolal Eh, ah balaa xool nam génne bi ba pare. ko mu xool ah, te génnewut xaalis. xool rek. am na du da ngeen di jaay damay jënd. bàyyi ko mu geese da teel. yéen caaxaanu leen. caaxaanuñ kay. duñ lekk laa ko caaxaan. mais mais fan ngeen jëlee lii laa bëgg a xam. yambaaji. waaw fan ngeen jëlee fan ngeen jëlee lii. joo moo la yambaaji. kan mooy joo. joo moo la yambaaji. keneen kay boo bëggee mën naa ko woon nag si. yéen da a dof dara de xaaral ma woon lekkar joo taxawal dong yaxawal man man lu ma daw barki yàlla kër joo mën naa la ko ay daw yu ñàkk fu la yooyu noonu. kon kon yàlla xam ne ne yamba ji joo moo eh! ko jox. nga eh! daw. ma nga nii di daw de xaaral ma toppal na ko. yow mënoo dem de. moom moo moom moo yoroon yamba ji. lu ma la yëg dafoo junne jàppale. yàlla xam ne ne moom moom la joo joxoon yamba ji man yàlla xam ne. waaw léegi loolu moom dina leen pressé tey jii. eh eh. eh! toll nii waaw kon ni say jarbaat lañ nii. samay jarbaat lenk lañ maag seen yaay ñoo bokk ndey ak baay. lan ma lan. wallaahi. billaay mbokk day feeñ. man daal ci eh, eh, benn bi laay génn mais jëluñu ma de bu boo mbokk ah. dafa mel dañ maa jël. xaw ngaa nduróog jabaay nag. jabaay man. jabaay xaw ngeen a nduróo nag seen yuulaay moom benn la. waaye nañ mel de moom ñaanuma yàlla nga mel ko yàlla tere xalaatu ma ko yow daal damaa génn si bitig bi dajay ñoo hmm. ñu ne dañ may doxaan ñoom ñaar ñëpp nag àndoon bu ma leen gis dama tiit <laughs> gis nga man li ma ci jaaxal nag lu tax nga jël leen rek fab leen ci néeg bi. Ah, jékki-jékki mel ni ku leen dañ dama leen a xam mën nañ laa wax jaa bu may def nañ. yéeme na moom erreur bu may dañ koy def mais nag naa la xamal dara de. Mm-hmm. sa sa sa sa sa may bi man de xamal ma ma jaaxal. non meew mi man meew mi ni mu koy defaree. yow rek yaa fi yaa fi man. waaw lu tax nga tàmm di naan ci pot bi. Hmm. chaque jour su ma la defalee ci kii craft vert nga bay pot bi lu tax ma tàmm daa mu tax Hmm. da nga fàtte jour bi nga jënd moom la lay witam jour bi ah, koo jënd am loo ma ci wax. waaw loolu da am na ma da nga koo jënd uniquement. pour yow waaw loolu da nag looloo tax ma gën a. koo la koo ki daw kan la. ma ji na. koo la eh. jalaay ah, nag dañ may dàq donc. waaw lan la. ku la tey ponkal dàq na ma. kan la doon am. du dara du dara nijaay. waaw baax na comme benn dara dana dara baax na kii. poto. kan la doon. waaye dafa yow itam. ah. xool nañu ne sama membre rek. yëpp kan la ñuy dax. dañ ñuy dax ci biti moo tax waaye daw mu. lan ngeen def ba ñuy dax. ana nga xoolal da nga yàq sa yàqee sax membre rek. mais man ñii mais ñii nan laay def ak ñoom. ah. Enfin Mais c'est la vie. Regarde-moi. Quoi Eh, eh, kaay leen kaay leen kaay leen bi moom kenn du ko laal yéen a koy fop yéen a kaay leen kaay. acca fomp leen eh eh bëri bi. eh ñoo xam fomp li nga fomp waaw dina koy fomp. waaw man de du ma ko fomp man mais man man mos naa gis ni ñu mel ni. man du ma ko fomp de. jëlee leen morso ngay fobee rek ko laal. morso yi dama xam set dama tiit ni jaay. eh xam. ci ay nit doon dàq. Eh, wax xamul lu doon def de waaye baax na rek. ñii. mais man. non vraiment man ñii jaaxal nañu ñii franchement ñii. mais baax na xam naa ne man dafa ñii il faut mu lu liggéey fi mu toll nii lu ci mën ci moo xam yaa ko def moo xam defuloo. Eh, ah eh ñam doo loof yi waay may waay may xaar. Eh, teg ma sa tànk waay. yow doo eh, xaar ba mu nangu sax doo xaar ba mu ko ba na puusal nga bëgg a dikk rek bëgg koo ñabaam mi li nga barde bu yàgg ah xam naa ne dag <laughs> seen morom moo leen doxaananteel loolu la waxoon man maay seen jabari ndi jabar ah. yow nag mi daan nga ci kër gi mi daan nga ci kër gi kan da lay ah, fay far weer maay sa mi daan xam la laa bëgg léegi nga xam ma di jënd ko mu jeex man dama am dama am fu la ci sama bopp dem léeg-léeg damaa bëgg na jànku doo par doo doo réglé sa ba ma par du la gën de jërë nga di ma jéem a ni bëgg ma rendi de maa la doo taxaw ba ma pare ci li ma li may doxaan dégg léegi bëgg ah maa ngi bëgg a joon bëgg a joon waa dama la laaj seen toogaay bi lan moo ko bëgg a doxaan bi la ci ñu ñu ñu def lancement ña ko dugal ca biir ma ñapaaxu. di fa doo doo defal lancement ma def fi ma <laughs> diwaan. de doo doo dugg ci biir ma ñapaaxu li ma eh. ñapaaxu nga doog a. léegi nag yow tam. nangu wala nangu woo. Ah, ma laa wax nangoo ko. nangu ma ko dëgër ah, eh, ba. ah jooxoon na ko lu leen na. ba mu bañ rek nokk ko xam. waaw

jën naa ko ci rek sam munoo fexe ba duma la ko dimi kat di ba lay boole bu ma jox ko affaire ne comme dara bi laa coow dugal nekkal di jaay di ma rek sama nijaay ndeke kii jabaram ah jëg naa doom dikkee mbakke la ko takk sama nijaay mii nii yow kon danga koo dégg bu yàgg rek noppi ah déedéet dama koy doog a dégg nag dégguma koon bu yàgg noppi de xam nga lan mooy sélection ah. nañ lakk kër gi déet déet liñ naan géer day sax mu njaa déedéet jaxal ma ma xelal la téléphone gi nga yor jëne ko man kër naa numéro collé ma defal ma numéro bi defal ah, ku posé ko rek ma woo soo defee ñu woo ko def ko ñu defal def ko ko ko jaxaw lu gaaw ko allo la collé mbake dal mi ngi toj mbake yee ngi toj Mbacké tippiku na xam nga sama jaar lu mu def alkaani carnival ndeke di fatak jabar joo xam comme maa ngoo nii comme dama ma ngoo ngoo yaa ah. xam nga bam la takke ba tay yagna yaangi de ngi dégg ko moo kooku di teul di teut gudi ñoy bok di def fi sa sa yaang may dégg bon di mi ngi lay mi ngi lay kess nga nak lim li ma nee yau yow bëggu la nee na yow dalay nax rek dalay nax waaye lima lima guddi bëgg la bëccëg limal la limal yooyu yëpp noonu kan la ah di nga ñëw waaye mënoon ngaa ñu waaye nga naan ma alar begee tax waxal ci ah wax na dëgg nag alar ba nee na alar wax na alar ba kenn du ko ah suba waaw suba ñëwoon alar xam nga dañ ne bi ñuy door a dañ leen wax naan mbakke tippiku mbakke yaa ngi door a tippiku nag nee ko kim tak nag moo la gën a ya, mu kim tak la day wa ngeen ah di nga ñëw. na kon ba suba. ba nan tëj ba suba dinañ la xaar de. nan suba baax na ah déedéet. lay sama dina xam ne lépp dëgg la. kuy kuy nëb duy naan. boo jàng di fee. na bu yàgg. fi mu toll nii lu ci mën ci xew. mooy xam jóg leen waaye ñii dañoo dox xanaa ngeen nelaw bër bi eh gaaw laax jóg leen baa ngi nii ak kii bi yow tamit may nga ñëw ba boole damay génn gaaw jekk daagu jekk daagu kaay balaa maa génn am ah, ma gis waaw Pape yow fan nga def nii jëm yow. chérie tey moom vraiment su ma xam nga fi ay yàlla ak yow. dimanche moom tey am yàlla xam ne tey li ma jox sànq yi ma a toog ñu toog te tey la ñu war a yi te vraiment bu ma demoon lu baax tey moom surtout vraiment la yow du lundi au vendredi yaa ngi koy liggéey au moins dimanche bi nga mën koo togg man suñu ngi koy tey moom dama ma moom maa la gën a bëgg yàlla yow xam nga ne yow moos comme lu non non bul def bul faj boo meree rek man ma am problème booy man may may jaax hmm. boo man amul lu yow man hmm. nga ma trois heures de temps du ma ko fa def ah. jotaat si trois ki lay añcee maa ngi dem ne maa ngi waaw xale te leen liggéey jënd naa ko mais yéen ngeen jënd jaar ko jafaay mais yéen ngay xaar jënd leen man mën naa jar vraiment man nii non ëpp nañ sama bopp ñoom moom bref nii ale kon naa la bàyyi nga dem waaw waaw waaw ah, ale bonne journée eh demal sël mu waaw man do vraiment eh, eh eh eh jóg jógal jógal jógal jógal damay jógal damay jógal jógal damay dem damay naa jël kaa leen sax yéen balaa ngeen sëlma mun mun ma fee nekk leen xaar ngeen di sëlma ne woon léegi bu pare kon dugal ko ma temps pour nekk fii dama am fu may dem mbaam bi nga waxoon wutal naa la yow itam bëri boole naa la Pablo bu soobee yàlla boo bëggee ñaar fukki bëri ba fanweer dina ba eh, da ngeen ma fonto man dama fu may dem damay tàggu da ngeen di ñëw wan leen li ma leen di wan wax leen li ma leen di wax wax leen li ma leen war a ngeen ñëw mu toll nii lu ci mën ci xew moo xam yaa ko def moo xam defuloo war na gaaw a jeex ndax ñun sonn nañu ñu de soxla wu ñu xam ana kan moo tooñ yéen a ngi ñuy gaañ metti nooy dem sa xamu fi nga jëm ne lu ko gën a metti am ma su raax rek laa ma seet yi mbaa tojut ci kii bi bu ngeen fee di xeex dee leen ñuy xalaat sunu jumtukaay lépp yàqu nañ te yow doo ñu fay keneen ñi du ñu fay soxla wu ñu xam ana ka moo tooñ yéen a ngi ñuy gaañ metti naa na njaay na njaay kay waa gis nga damay génn gars yi ñoo ma woon nii léegi quoi ba pare fan yële waxoon naa ne la dafa am fu may dem damay dem foofu du ma fanaan si dégg nga du ma fanaan si kër gi yëpp na nga ko tëj bul bàyyi benn port mu ubbeeku ba pare na ngay xool xale yi bu baax. ok ah ok merci. chéri la

lo di medan nekk ci dëkk bi taxawaal rek amu fi nama loolu moom leer na man moom nama ya, kucing naa kucing fii tuuti man ko naa nokk tuuti fii ba bu ma gisoon sa retu mbaan tax na ci moom ànd ak moom di wër waaye wër boo xam ne say tànk ngay wër wër a wër a wër koo fay tur wi def moo njëkk a réeram ko wax mu réer ku ma ko wax mu ne tur de dafa ruqe li ëpp na de ay alkaani ñi ma yàlla alkaani day bu ma dundoon ma ne ko xot bët dootuma rëcc de fi mu toll nii lu ci mën ci xew moo xam yaa ko def moo xam defuloo war na gaaw a jeex ndax ñun sonn nañ nde soxla wu ñu xam ana tam moo tooñ yéen a ngi gaañ netti nooy ay tamit gaawal looy def so mais naa la xamal dara de ci loolu ne woon nga mel waaw yii trop sànni man sax laa waroon def fi ne nii dungu laa waroon def ñëpp tax muñ soqi. bu ma daan de. Ah, yow laa bëgg. mais la teeroon a gis su ma dugg ci jàmbar mi. mais naa la xamal ne man man di ma blessé quoi man di ma barki alxuraan man yow yaa may tere nelaw. te naa la xamal loo xamul nag. Hmm. gis nga suba li ma bàyyi ci kër gi. non non bul comprendre. xaw ma lu may saf. ji tas bi damay tëdd ak moom di la barke rasul naa la xamal dara ne ma juddoo sama mbay sama mbay ma jigéen jurul jigéen bi mais ku mel ne yow mosoo ko. Ah, a rek jigéen day xajam xam nga naan jigéen day xajam mais bu ñuy wax. yow yaa tax ñuy wax. billaay non xale bu jigéen bi man li may def li muy yëg ci yow. gis nga kan la xam naa kenn mënut a bi wax

nyaf fukki gitu, dërëm dong belajar gitu, jaay ah ci ma gum jëm te man damaa luyam ñett nga ne waaw yo yo. man man man ma la man sama bisa bii ni yaa man may jaay sama bisaab bi xam naa jaay ñu ko man jaay bisaab bi damay xëy suba ba ngoon jot bu jaay du ñaar fukki dërëm maaleykum salaam ñu ngi sant bu baax a baax maaleykum na nga def la dox dong Siya ko katibol? Wala Walat. Wala to maju wala Wah, wah, wah. Kamu, kamu kam kam far di jaay wala sa jeey. Ñum bitel bi lañuy jaay ak mbuus. Mbuus wuru jox ma ci bitel bitel bi ñaata nga ma koy jaay? Wa bitel mom bu fessé eh, ba fess. Témèr mhm. la ni di gënë rek juroom fukk la koy jaay. Pour yow mom na la ko defal juroom fukk ndax xam naa da nga moo ko juróom fukk. ah def ko juróom maanaam 300 mooy juróom benn fukk waaw waaw. damaa som som boo xamante ni. yàlla yàlla ñëw na de. yàlla ñëw na ànd yàlla ñëw na ànd ak baax. waaw ah nii laa ko jolo. ah de am naa am na am na am na am na ay cas. am ngay pop doo ko gis. am na ah man damaa complet man sama. daa complet da nga xam ne jolu bi teel baaxul. ma ma ma pop beegam. am. ba yow. mukk bu ko du ko gënal benn. ah déedéet déedéet ñun baax na ñun ñun bés bu ne dañuy naan baax na garaawul. baax na billaahi baax na ah, teraangay naan dong ko mën a fay ñu jël rek comme comme ah garaawul wuy ma ñu jël rek garaawul wuy ma moo xam boo génnee sa affaire la ma boole ma la génnuma sax dama ci ah, man danaa ko jël rek ngir sa jëm waaye man de man mi jaabi saa bi rek xam nga ne man moom fekkuma ci man xanaa jël ko rek ngir sa jëm ak it ngir nga wóolu ma ndax xam nga ma ci naa ne yow di nga ma gën a wóolu waaw man wóolu naa ñëpp waaw waaw waaye xam nga waaye xam nga xam nga àdduna daa wóor. di naan mbir rek mhm. ci dara yow foo jógee nii fi ne. man yow foo jógee. xanaa da cee doxal lépp. daa na na. Ah, man ko nee na yow moom sa bisaab bi ngay jaay dafa neex. Hmm. waaw yow yow yow foo jógee nii fi ne. man jóge laa jóge déet sax laañaan. ah laañaan nga jóge. ah waaw waaw wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg. ana ana waa laañaan ah kii kii kii moom moom moom moom ñaari biteel laa benn biteel bi moo ko jënd. baax na baax na. ma yow ci ke. Ah, na man kay man man moom kii bi moom. man ko man moom kii bi moom nii laay def man. mos naa wax moom. boo ko bootee jeexul taxaw fii. nga ni nit ah waaw yow moom yow moom waaw waaye man man asam man kii moom baax ah, na. waaw teraanga teraanga da nga koy fay ci naa am na teraanga jënd ko amaa teraanga ngay naan ko. waaw waaw waaw teraanga moom teraanga la daan saa la. xam nga loo fate. mu xorom pale mu ni mu sama bisaab moom. ah si sama bisaab. soxna si man doyal na. wuy ma mandi naa mandi naa mandi naa wuy ma dimbali iya ma rek barki man du ta dara gunta ngay duma ko naan la wacc ngay xulé naan gorel dara yene kay dara ngay naan rek man xam naa ne ngi ba bi bi dona war de gëmal gëmal rek gëmal garab bu neex garab bu neex gëmal ah lii baaxul bu dee bu fekkee ne ñett ngeen kenn kii lekk ñaar ñi lekk kenn kii di mm. eh, eh, la ah, ko. ah ba baaxul waaw waaw waaw baaxul baaxul newoon naa la nga mus baax na mënoon nga cee ñam ñam rek mënoon nga looy jaay nii. man ñaar ñaar juróom kii bi kii bi. kii bi juróom fukk la ah juróom fukk. waaw juróom fukk la waaw. yow de xam naa ne ku baax ah yow kenn gën laa baax ne ndax yow mënoon ngaa jënd sa bitel bii rek yaa koy loolu baax ah, koy bokk Sénégal moo moo tax des fois Sénégal fii foo gis ñu bon rek ñu baax am na ah, foo gis ñu bon rek ñu baax xam nii jafe na ci réew mi ndax kii mënoon naa jënd bi ci lam bii ni day ba yëgg këram daal di koy naan loolu ah, sama jëm xamaguma ko gis nga ma jógee maa fa ba may def hmm. chef de quartier hmm. a doon jooy di fëleñ hmm. ma ne sama yoon nekk ci fipp rek ne dinaa def dama faa yegg am naa fa juróom benn weer ma ne ma dikk rek jënd ko waaye danoo joy, joy, joy, jooy imaam daa joy, jooy bay jooy deret bi sama xel ci ci bëgg imaam yi rek am defati lii jërëjëf waa bu baax ko de ma ne ko bu baax da nga da nga juum de gis ñaar ko juróom juuma ma ñoo ko bokk nga ma ne ñoo ko bokk laa wax ma ni ma ni ñaar ko juróom la de sax ñaar ko juróom waa da nga ne ma ba ci ko ci de ko pour la dangaa war xam ne ñoo ko bokk nag ñoo ko bokk. Ah, naan naa kaas jox la kaas. dëgg rek laa wax bu a ah, ma. waaw na la dëgg. waaw eh eh eh eh. mu ngeen doon naan dama doon seetaan. eh waaye Samba yow eh soxna si eh. jox ma sama ñaar ko ngir yàlla la ñoo ko bokk taas bi jël sa benn taas boobu man mii jël naa sama benn taas dama koy suuf waaw yow nan lañ ko bokkee ma te nga sama ñaar ko ma sonal dama lay doon de waaw yow Assane Assane waaw Assane Assane doo wax ak kii Assane ngir yàlla ah, di ñaar fukki juróom la ma jox ma dab ko rek was nga ah ma wax ak moom yaa ngi wax ak dara xëy mbalit mi mi ngi xeeñ. war naa ci yàlla Chérif fii dara xëy eh, sax léegi wutal ma xoolal xoolal ma saret bu man a tuur mbalit wala lenn. mbalit mi tuur naa ko fii dara. Eh, dara li ma wax ngay def. xam naa douche bi eh li ma wax ngay def alors damay wax léegi nga ciy teg baat génnal nga wutal ma saret alors నాకు నాకు ఇచ్చేది బా Kali kita kan nenda nak kidak biwai. Gadohan dohan bumuben. Kituran penara iwai. Eh kali binak kidak. Eh jadi lama kurati masa wanak. Ay! Balik! Balik! Wai kundi bukuyar balik wai.

jeex na maa gën a boñ. jeex na kaa jëlee man. sama jéem naa na naa na mbay ko wër dugub. oh soxna. yee yee yee. soxna soxna. man ngay woo. mana waaw mana. mana. naa de. réewum jéejee maa ngi maa ngi si jàmm yow nuyu woon naa la fee fay sa kanam. ah parce que ma woon sama kanam man damaa xaw a kii rek damaa nice. ah nga def ku nice yow. waaw ah. nga dëgg de. nga def yaa ngi si jàmm. nga mel ni roog daaw la jàng ma defoon dëkk ba. alhamdulilah dëkk ba. alhamdulilah na def. duñ la di jaawaleeg moom maa ngi ah, si. an kay dañ may ah. jaawaleeg moom lu bëri. dëgg na nu roota dañ may jaawaleeg moom lu bëri. yaa ngi si jàmm. soxna si dama laa gis bëgg la. sa xol fàq ci yow sama jaandi biir di xurxur bu loolu ci xamut sama tool sama toolee ne xel kom hmm? bu saxee may la ko ma dama giñal giñal wàllu yaa ma gënal sama ndey ak sama baay saaga ma yal na nga dee amin <laughs> yaa ñàkk doom billaahi dama laa bëgg sama xol bi dama bëgg dama dama laa nopp bëgg la sama biir xol bi yaa ñàkk doom man ku ma gis bëgg ma dima lay tontu rek ñii la dégg man soo ma gisee bëgg bo ci gene non ñi may doxaan ñep ñep bu luñu demé dinañ am luñu ñu mënta nekk di dégg ah. nak ni ma bëggee ni lu ko raw la la bëggee jaral nga ma dug ci géej di dem di dem ba ne métti nga taxaw di ma séntu doo ma gis kenn mm. xanaa loolu nii neex na kenn wa waaw loolu laa bëgg ma ñama la tuuti ci li ma gis ne <laughs> la ko fekkate sama lu wa bii dama ko sani dama koy def ñi sax ko galat ci wone ku ma bëgg a doxaan man na ni di nga def nak do ba bëgg Salah guys, bagla sari na buri bag sari ni. Hmm. Ana kana tidu bardo. Makalaji kan ni kap dile ala aisu. Ay hera bi nak ni nak ibon. Ibon Ayo gerbo. Wa na ko sonu ne ko ni bali la mo na kana dum bali. Bali hadu di sa karbo. Yow li ngay bëgg wax li di rëy lamine naan bali amul. Hein? da li fekk jàll ak mbali alors. waaye ñoo bokk mel ni que duñ ko ne. eh eh eh tëjee ma sa lamiñ bi laa tëjee ma sa lamiñ alors. li mu dugal mbalit mi. yëpp climat yi bi ay man borom mi dugal nañu yow bu ma mu toll mooy set fii laa lay rendi yow ndeke kacoor bu mag nga fii laa jox sama yamba nga dem xaw ma daw ak moom booba laa la gëj a eh, police da koy tere police lan police benn baa waxoo leen ni fii laa de mukk ci àddina baa waxoo leen ni de waaw xam nga man defewu ma noonu dama dama dama dama eh pour wax maa ngi ñëw leen ba tax ma sama lépp pour wax may naa la lépp dama dama daxal acca acca acca acca acca. eh waay ñëw leen mbalit gi waay. acca waa kon bi gën leen. eh booy daxal sa doom bi waay ngay wax. képp ku yor mbalit di nga gën waay. daxal demal. Aliou wax trop waay. képp ku yor mbalit bëgg a tuur lu ñëwal njànku ñëw na. waa kon bi gën leen. képp ku yor mbalit bëgg a tuur lu njànku ñëw na. waa kon bi gën leen gën leen. képp ku yor mbalit ñëwal waa njànku dikk na. waa kon bi gën leen waa kon bi gën leen Depuis ya, que j'ai banit nyawal nyanku na. Dia tabak ni mungkin ramon tu tu tu saya kat dia. Ni dah dah tu dia kat dia. 一个把一个地方上面上要我们这有的。哎呦，哎，妈喂，哎，因为我们家火力是不行的，我就不能运动了。وادي خول بيدان تي سمكة يقولوا ده ما تي شم شو ما تي أخول بالنخل ما ما خلص أخول ده ما خول بالنخل اللي وركر بس كده أبوه في دي كده لا تنيل النادى ده يور فور خنا يلا ترى لو ما دوين فور آه يلا تكلمنا على كل شيء daan naa fóot de waaye léegi fóotatuñu ah yow jot nga de man ni sañ nga laa wax laa la cat jekk na waa kon ñii gën leen way ñagu ñëw na yoo mbii kala ndox du loo nekk nag maa ngi ci jam nag boo jógee nii kon kon yaa ngi liggéey bu baax liggéey gi neex na lool xam nga bu ma toogee nag benn fan gisuma la war a ñett nag sama xol gi day tàng jër dama lay nam lolu amna me mais gi difa neex lool. ay ah, mi ngi neex lool ah, difa neex kay. ah man de wax dëgg yalla bima xey ci keur xam nga sama sama jaay ñaar fukk lama ci ciy waw yaay yalla xam ni la jaay dem def dem bi dama ko bëgg a jox sama tam sama moom bañ la ko bëgg a jox nag ah damay buñ mu ne jabaay da da da bon di bam xey di liggéey di ak legi mu musuma jox benn baasa. ah ah, ah dama bëgg nag ñu dem ci keur ga yeesam nga participer. kan man ah dewmade man dewmadi par ce que ay affaire yooyu de man dewmade ngaa seytaane man dewma waxee noonu ko koy de su ma demu ting ma bool kon dinaa ko wax nga dëgg loolu di farata nag loolu di farata nag yow mii nag may def bàjjani gune yi wala bàjjani gune yi loolu yaa bon bajjani gone yi nga xam ne daa bon bañ wane ko te nga xam ne daa bona bona bon ba raw bonati fi nga ma bu ma ko waxati de ah, yow damay jéglu li ma gën a toog ci bajjani gone yi leen ko doon a mën bi mu naan bu sewal di ngalañ ngalañ ko romb ak ko ah bajjani yal na a dee ak lii sa jëkkër ji def doon sama jëkkër man la ko def nga hmm. bu la yàlla nag na natoo woon jigéen nag eh, waaw di may def exemple leer waay ah. xam nga ñun dañ dañ dañoo wax ne les deux cons mm-hmm. far yàlla ko lay ñëw ñun nekk nag far nag les trois cons yaa ngi dégg ko lay nee na tey lay ñëw laal xam mm. moo tax ma lay jox misaal donc mm. bu la yàlla defoon jigéen mm. sa jëkkër takk la ba pare dem beneen dëkk takk fa beneen jabar boo ko defee noo koy def. damay sansal diwlin ba mu sens raay ko ba mu yaakaar ne nelaw a ci nekk ma rosi ko ko. day tàng te boo ko fajee mu wér. xanaa ma def ko defal ko xombi sombi xotti xam nga du ko def dara yow nag bu doon yi ba mu foog ne ma a dee de loolu du ko tax a dee. Ah, jëm ak kër. kër alkaani fay gi nekk ci dëkk bii rek mun maa ca suba ba léegi ba ma wàccee ore bi wàcce ma ba tey. Ah. jënoon naa seri ka xam ma sees dama ko saa wàcc. am kaani fay waaw ma am fay men maye noo def ma koy xamee gi tax ma xam ku fi def siiw na ci rëbbi bët de ii alkaabi lan ndox nag damaa mar de ma may la ndox ci nit ki dem ak toogal waa dema waa du dam ji ñex ya. waa kii moom nit da wala yàllaa ko yónni nit maa gis ci moom ñu ne ci ida xat na xat na

tay đi vay nhờ nghi nỉ đang cốt đà bác cô hỏi im mặt nó cô hỏi im mặt cô hỏi im mặt nó cô hỏi im mặt nó cô hỏi im mặt nó quay im đây nè à đi ngồi đi gây quá đó má đi đâu thế tiền cái giặc nè tiền cái mình lấy đáp đi ngỏ qua hai trăm ông qua hai trăm ông phải nguyên được bao nhiêu lần đây là đặc biệt đẹp nhất nhưng mà đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi lépp ay leer damaa bëgg nga def ci la eh kar moo moom kër maa def ci fii nii moo fii mooy yàlla mën a taraase te du doon mukk nag yàlla mën a taraase te du doon kon man fii laa dëkk nii nga wuj la du taatu du du boobu ku ko ci tool kii nii eh, ma damaa tiit bay loxo mooy yow ponk affaire yi njëkk fi yow ñëwal waaye dama koy indi bi waaye ñëwal indaa leen doom doom bi mbalit du fa yokk. doomu bi am ah non nag nag nag xoolal ndigal la si. sama nijaay ci boppam ñu ñëw. baa ngi noonu. boo paree nga xam naa dina jot sax may la ko jox man dañuy jàppal mu yokkoon la ko. lii dafa rafet ma ko laal. ah li daa jar yokk. yow jagaane sama bopp eh, yow eh, sama moom moom sama nijaay di fa caga de loolu. sànce la jóge. ak sànce yow sànce mi nga dugal ci mbalit këppaguñ la ndox sax dangay door. affaire bi leer na nañ. đi Dudega đi đi dinan rek dinan sum sumak lip nga boole gros dinan tey nag danga nga say tànk dem na sa diggi nawle fi mu toll nii lu ci mën ci xew moo xam yaa ko def moo xam defuloo war na gaaw a jeex ñun sonn nañ nde soxla wu ñu xam ana kan moo tooñ yéen a ngi ñuy gaañ metti nooy bu ngeen dee di xeex